allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi ahyaana ba'da ma amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5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 bokk sant yàlla buur bi ñu yenkeewal wërsëgal ñu wërsëg ba nga xamante ne ci moom dong la mën a jóge ko mu doon xéewal bi nga xamante ne keneen ku dul moom yàlla amul kenn ku ñu ko war a mën a baaxe jàlla wa ala moom mu ñu wërsëgal xéewal ba toll ni ñu dem wuyu convocation ba ñu noddkat bi woote mu du ñu wax ci biir woote bi ne assalaatu xayrun min an nawm julli moo gën nelaw ba ngeen nekkee kon bu fekkente ne noddkat bi lii lay wax ci jamono bu muy yëglu jamono bu muy yëgal askanu jullit ñi ne jullide moo gën nelaw bi ngeen nekkee képp ku yàlla wërsëgal bi nga war a mën a dem wuyu la nga xamante ne mooy noddkat bi la muy wax nga dem déggal ko xamal ne loolu du sa njàmbaar xamal ne loolu du sa góor du sa muus du sa waane du sa lenn yàlla moo la ko wërsëgal jàlla wa ala kon ba tax na kenn ku nekk ci ñun bu ko yàlla wërsëgalee ba mu joxe la nga xamante ne mooy waxtu yu julli suba soosu war naa war a mën sant yàlla waaye ñu sant ko ci xéwal bam ñu may gannaaw bum ñu delloowee suñu ruux jamono bu ruux yi ñépp bépp bakken ñépp soobu ndoor démb dugg ci neegu nelaw yàlla am ñamu jëflanteel ci ay bakkan comme nam ko waxee ci aaya ba nekk ci alqur'an allahu yatawaffal anfusa xiina mawtiha jamono ba bakkani yi sóobu ñëpp bàbbeeku sóobu ndóor ci néegu nelaw mu am ñi mu wërsëgal ñu nelaw nelaw bu yemamaay mu am ñamu may ñu nelaw nelaw bu xóot waaye mu am ñu mu récupérer seen bakkan ci nelaw woowu mu am ñamu delloo seen bakkan ci jëmm yab ruux bi bàyyeekoo mu am ñamu delloo seen bakkan kon képp ku bokk ci ñaay yàlla delloo seen bakkan yonent bi nee na boo yeewoo dafa am li nga war a ñaan sante ko yàlla te mooy alhamdulillahi alladi mboolem xeetu cant yu mattalee ñeel lañu yàlla alladi ndax yàlla mooy buur bi nga xamante ne ahyaana moo ma dundal baada ma amatana gannaaw bu mu namee ci man dee bu ndaw te mooy nelaw waaye nag wa ilayhi nushur ci moom yàlla la ñuy dellu keroog bu ñu taxale ko dund àddina kon ñu bokk sant yàlla ñaan ñaan bi ne alhamdulillahi alladi ahyaana baada ma amatana wa ilayhi nushur mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot yéen a ngi fàttaliku bi léegi ñu ngi ànd yen ci lenn ci amalu saale jëf ju baax bi nga xamante ne yow doomu aadama yaa ko war a mën a optel sa bopp yaa ko war a mën a ŋànkal sa bopp yaa ko war a mën a jëmbatal sa bopp ba tax na ñu ngi doon fàttalante ki lenn ci la kilifa yi jëmbët te ñu santaane ko nañ leen géema a góorlu fekk ci leen ci loole mu doon saman wa taa mu doon dégg ba ñuy dégg ndigle waaye topp ba ñuy topp lépp loo xamante ni ndigle la lu jóge ko su ñoom te mu doon luy ñaŋal penc bi luy jekkal penc bi luy mucculoo penc bi ayib mu doon penc ju mucc ayib askan yu mucc ayib narkaa dundee narkaa dëkkee su ko defee mu méngoog la aaya alquran ba yàlla wax yenentu bi inna allaha laa yugayiru ma bi qawmin hatta yugayiru ma bi anfusihim déet yàlla mudiki soppi la ci nit ñi lu nit ñi seeni jëmm ñoo bugg soppi la fas ñoom waaw la ci nit ñi yàlla du ko soppi mukk lu dul yàlla daa gis ne la ci ñoom lañu bugg a soppi waaw la nit yi la ci nit ñi bu ñu mu soppeeku dañuy tegu ci yoon wa dañuy nekk ci nekkin woowee su ko defee buur yàlla daldi leen soppil loolu ñu bëgg mu soppi waaw su ko defee ndegem ñoo bëgg doxalin bu bees kon dañu wara won yàlla ne ñun dañoo bëgg lu bees kon doxalin bu bees woowee mooy fa suubu ni yal nañu ko buur yàlla yombalal moo tax yàlla ne ñu inna allaha laa yugayiru ma bi qawmin xatta yugayiru ma bi anfusihim waaw buur yàlla du soppi daral li ci nit ñi lu dul nit ñi ci seen jëmu bopp ñooy bëgg a soppi la ñoom waaw ah, bu dee dañoo bugg a soppi li suñu jëm dañ si dugg jeex ci tàkk moo tax ci suratu raad bur yàlla mu di wax yonent bi salaa sallam deeti yàlla mu di aji soppi li ci xeet wi lu dul xeet wi ci boppam ñoo ñooy nangoo soppi la ñoom waaw mu teg si bu yàlla namee ci aw xeet safaanu lu baax amul kenn ku ko war a mën a delloo day ñëw rekk waaw mu doon aaya boo xamante ne mu ngi suratul raad waaye mu teg si tamit bu namee ci ñoom lu baax tamit amul kenn ku ko war a mën a delloo waaw moo tax bur yàlla tabaaraka wa taala mooy buur bi nga xamante ne moo yore lafa moom keneen kudut moom yorewu ko keneen kudut moom mënu ko keneen kudut moom du ko mun a taxawee subhaanahu wa taala ba tax na ndegem loolu mooy li fi nekk nañ leen géem a góor-góorlu ànd ak yi géem a góorlu ànd ñoom ci lañ ñuy woo ci lu baax lu mel ni lay ñoŋal pénc bi lay jekkal pénc bi lay tax pénc bi mucc ayib ba tax na tey ñu fas yéene wéyandek yéen ci amalu saalix ya ñu tàmbaleek mbokk yi mu doon jëf joo xamante ne doomu aadama ju ne war nga kaa war a mën a bàyyi xel war nga kaa war a mën a jëmbat sa dundu ndax dafa am appareil bi la buur yàlla moo ñaale mu baaxee la ko mu bàyyee la ko léegi nag des na ci sa jëmm ji appareil boobu yàlla baaxee la ana ci lan koy jëmbat ana ci lan nga koy war a mën a exploiter ba tax na noonu la ñuy fas yéene dugg ak yéen ci aaya alquran ba nekk ci suuratu shams buur yàlla tabaraka wa di wax yonent bi ne li fi nekk kañ man yàlla maa baaxe doomu aadama bi appareil ju mel ni bakkanam waaw ma xamal ko lu ñaaw la mu nekkee en même temps ma xamal ko tamit ragal yàlla suuraale yàlla la mu nekkee waaye li fi nekk mooy bakkenam ngi nii mucc na texe na képp ku bakkenam mu sàmmloo ko lépp lu ko tere walla mu jël bakkenam teg ko ci lépp lu ko yàlla sant waaye bakkenam ngi nii toskare ñeel na ko bakkenam ngi nii pertaange ñeel ko bakkenam ngi nii mujjanteelam toroxtaange moo ko ñel mooy ban bakken mooy bakken joo xamante ne sàggante dab na ko ba seytaane këf na bakken bi mu di ko diri jëmale ko ci la mu moom seytaane ak la koy neex moo tax bu ñu demee xool ca suratu sams la ko daale ci aaya juróom ñaareel bi aaya juróom ñetteel bi aaya juróom ñeenteel bi ba fukkeelu aaya bi dinañ fa fekk aaya ba yàlla di teqantale yenentu bi waaye xëytu yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu war si wara a mën a xàmmee teqantal ba yàlla di distinguer bakken ba dëkkee di jëf lu ñaaw ak bakken ba tënk boppam ci lépp lu yàlla digal lépp lu yàlla digle mu doon la mu soob mu doon la mu gërëm moo tax bu ñu demee xool ci saar bi dinañ fa fekk buur yàlla muy baaxee yonent bi sallallahu wa sallam mu ne ko wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dasaaha mbokk yi buur yàlla tabaraka wa taala moo ngi nii di baaxee yonent bi ci saar bi ci aaya bi mu ko wa nafsin wa maa sawaaha gëñ naa ci bakkan na ma ko binde ak na ma ko taarale ak na ma ko melale yamale naa ko ci yaram ba muy dund yamale naa ko ci jëmb ba mu nekk di dundu yamale naa ko tamit ci mboolem mbindaafoon yema bind mu doon benn bakkan bi nga xamante ne sentiment bi benn la yëg-yëg bi benn la ci banneex wala ci naxar ci lu neex wala ci lu mitti ci fiix wala ci ladul piix ila axirihi wa nafsin gëñ naa ci bakken wama sawaaha ak na ko bindee yemale ko waaw bind naa bakken na ko bindee yàlla nee na gëñ na mu bindee bakken ak garanti bu ko garanti ak dayo bum ko jox ak teral bu ko teral ak maqaama ju kawe fa mu bakkani doomu aadama rawatina bakken ci boppam yàlla ne waaye bakken jooju ma bind taaral ko ñoŋal ko ah am na lu ma ko gàll de mooy lan buur yàlla mu ne fa alhamaha fujuraha wa taqwaha xamal naa ko may naa ko ràññetle may naa ko la muy war a may naa ko la mu war a ràññee xàmmee mu am distinction ba mu war a mën a jëfal boppam la ñaaw la muy def wa taqwaha ak suuraale ba muy suuraale yàlla ci jëfam kon yàlla mooy bind bakken teeral ko yemale ko yàlla mooy ki bind bakken yemale ko ci jëmm yi teral ko ci teraanga ba mu nekkee waaye palaas ba ko teg amul kenn ku fa mën a teg bakkan ku dul ki ko bind waaye nag mu daldi di ko responsabiliser yët ko yëpp ko yenuloo ko xamal ko fu juuraha la ñaaw la muy def bakken bu defee lu ñaaw bala nit ñi di ko yedd jëmm ba mu nekk jëmm jooju mooy njëkk yedd bakken jooje ñu ne loolu nuñ ko mën a xàmmee bakken bu defeelu lu ñaaw bu defee loo xamante ne bëggul kenn fekk ko ci loole masalan bu jëlee lamu moomul bu dee dafa détourné kees balaa nit ñi di ko naan aa ah, diw sangam xanaa du yow diw aa diw sangam xanaa du yow yaay famille diw ah, aa ah, diw sangam xanaa du yow yaa ci famille diw sangam balaa nit ñi di ko yedd ci lu ñaaw loolu mu def mooy njëkka yedd boppam lu tax muy njëkk a yedd boppam ndax yàllaa ko xamal lu ñaaw loolu mu def o kañ waaye nag ba léegi bokk na ci la yàlla xamal bakken jooju wa taqwaaha ragal yàlla ba mu làmboo suuraale yàlla ba mu nekkee bu defee lu baax balaa nit ñi di ko ne góor li nga def nii nii la jëf moom ci boppam muy xam ne ah li ma def nii kat lu baax la masalan yàlla mu bind bakkan yemale ko ci jëmm ba muy dund ak na mu yemalee bakkan ci mboole mbindaafooni mu daldi ko jox maqaama bu kawe fokk keneen mënut teg yàlla woo mu bind bakken jox ko teraanga bi ni mel yàlla mu daal moo xamal bakken jooju la ñaaw la muy def ak lu baax la muy def la ñaaw la muy def balaa nit ñi di ko yedd moy njëkk a yedde boppam wax nañ leen ne nam koy defee la rafet la mu def balaa nit ñi di ko nan waaw góor merci jaajëf mooy njëkk a wax boppam ne ah li def nii kat lii lu baax ñu ne léegi ñu jël benn masala ju mel ni ku yàlla jox mu am astuut mu am dëkkandoor bu mu dëkkal bu añee du reer bu ndékkee du añ bu reeree ëllëg du ndëkki mu nekk ci anamu bu doy waar boo demee ci marse bi walla nga dem ci grande surface yi nga daldi di pañe yooyu ñu di ko watat ci béréb yooye nga chargé ko ci lekk ak naan lakay mën a yóbbu ba un mois wala deux mois nga ñëw jox ko jëmm jooju gis nga boo ko ko joxee balaa nit ñi di la ne la nga def nii lu rafet la yow ci sa jëmmu bopp yaay xam ne li nga def nii lu rafet la moo tax yàlla ne fa alhamaha xamal naa bakken jooju fu fujuraha lu ñaaw la muy def wa taqwaha ak lu rafet la muy jëf waaye yàlla nee na ñaari jëf xamal naa ko bakken bi jox naa ko appareil buy distinguer lu ñaaw la muy def ak lu baax la muy def jox naa ko appareil buy distinguer lu baax la mu nekkee ak la ñaaw la mu nekkee bu defee lu baax balaa nit ñi di ko ne li nga def lu baax la moom ci boppam moo koy njëkk a xam ndax jox naa ko appareil bu koy ràññet loo bu defee lu ñaaw tamit balaa nit ñi di ko naan ah diw sangam li nga def nii noo ko mënee moom ci jëmmu boppam mooy xam ne li ma def nii defuwul waaye yàlla ne ak lu mun di daal la ma bëgg a wax ci bakkan jooju ma jox taraanga bi ni mel xamal ko lu bon la muy def ak lu baax la muy def qad aflaha man zakaaha nit a ngi nii bakken a ngi nii bakken ji mucc na bakken bi texe na bakken joo xamante ne jëmm ba mu nekk sellal na bakken jooje ci lépp lu ñaaw sellal na ko ci lépp lu baaxul ñu ne la yàlla nee na bul def lii nga di si góor-góorlu sa kémtalay kattan di ko sore ngir ñoŋal sa bakken sellal sa bakken bul jël yëfu jàmbur nga bàyyi ko bul jëw bul wax lu du dégg bul nekk ràmbaajkat bul nekk naafiq bul nekk borom ñaari làmmiñ suba nga wax lee démb nga wax lii tey nga wax leneen suba ngay waaj a wax leneen lu wutik la nga waxoon démb ak tey bul nangoo nekk façon nit ñooñu booy ñuul na nga ñuul kukk ba ñëpp xam ne ku ñuul nga booy weex na nga weex tàll ba ñëpp xam ne ku weex nga way xaalis ak privilège ak eh, naa bokk nañ ma xejalak bu mu tax ngay wax waxu démb ba wuuteek waxu tey te jamono ju ñu toll ni xale yi dañoo yore seen appareil bu ñu naan vaar ak façon yañ koy tegee ci internet bu yeboo kenn ku nekk ci waxkat ñi la ngay wax na méngoog sa waxu démb na méngoog sa waxu tey waaw su ko defee même buñ lay vaar mu méngoog la nga wax waaye bu dee coppite tuuti am na ci te nekkut erreur nekku défaut ba nga xamante ne teyuloo ah li nga teyul sax dinañ la ko àndi waxatuma laa la nga tey moo tax yàlla ne qad aflaxa bakki na ngi nii mucc na sell na man zakaaha képp ku musal bakkenam ci lu ñaaw wax lu ñaaw waxlu lu du dëgg tuumalaateeg xasteeg wax ju kenn mënu déglu képp ku ko musal làmmiñam bakkan jooju sell na waaye yàlla ne wa xaaba man dasaaha bakke na ngi nii sànku na bakke na ngi nii texe di ñeel na ko cànkutee ko ñeel mooy lan man dasaaha ko boyal bakkenam jël sa banneexu bakken jiital ko mu dila la diri di la ci lépp li nga xamante ne mooy lalay sànk yàlla nee na waqad xaaba pertaange ñeel na bakken joo xamante ne man da dasaaha boromam boyal na ko xàmmeewul la yàlla digle xàmmeewul la yàlla tere xàmmeewul la yonentu bi digle xàmmeewul la yonentu bi tere moom daal banneexu bakkenam mooy yàllam moo tax yàlla di interroger ci aaya alquran ba nekk ci téere bi afaraayta man ittaxada ilaahahu hawa xanaa gisuleen koo xamante ne daa jil bakkenam def ko mu doon yàllam moone ne yàlla nit dina jël banneexu bakkenam def ko yàllam waaw waaw ci naka kooku mooy la banneexu bakkenam lay topp kooku su ko defee banneexu bakkenam mooy yàllam moo tax yàlla ne afaraayta xanaa gisuloo man ittaxada ku jàpp ilaahahu yàllam mooy lan hawa mooy bànneexu bakkanam xanaa gisuloo ku jàpp bànneexu bakkanam mu di yàllam ci naka ndax banneexu bakkanam bu ko ne nanga wax lu du dëgg ñu jox la lii nga wax waxal lu du dëgg nga wax ko ñu jox la waxal lu du dëgg nga wax ko ñu dugal la ci biir waxal lu amul tuumalaateel sosal Euh, voilà ila axirihi lu ñaaw lu ne buñ la ko waxee boole ko benn privilège su àddina wala benn poñutum àddina nga nangoo doon loolee ngir nga am privilège su àddina la ko yóbbee mooy sa bànneexu bakkan nga jiital ci lépp moo tax yàlla ne afara ayta man ittaxada ilaahahu hawa xanaa gisuloo ko jàpp bànneexu bakkanam mu di yàllam ci naka ci nii kon yàlla nee na waqad xaaba nit a ngi nii perte na man da saaha képp ku boyal bakkenam faalewul na muy amee alal faalewul na muy amee la muy lekk faalewul na muy amee dëkkuwaayam faalewul na muy amee waruwaayam moom daal lu ñaaw lu ne bu fekkente ne loolu moo koy jox puñutum àddina ak privilège àddina da ciy taq rib da ciy dugg ba jeex du xelaat ña jur du xelaat fa mu jógee du xelaat famille bu mu bokk du xelaat diine bu mu bokk moom daal lépp lu ñaaw bu dee loolu moo koy tax fagguloo poñitam àddina ak ndombay tànk àddina bu dee dañ ko ne waxal ci nit ñi lu ñaaw te yalla mu ne waquulu linnaasi husna na ngeen wax lu rafet jëmale ko ci nit ñi ñu ne ko deet bu fi wax lu rafet jëmale ko ci nit ñi waxal ci lii waxal ci li ci nit ñi lu ñaaw waxal ci soxna diw sàngam lu ñaaw ñu jox la lii nga bokk fii nga am lee nga jël sa làmmiñ takk ba mu dëgër takk sa fit di ko sosal di ko kireer ngir lan promesse sa ñu la dig mbokk yi àddina bi dafa jeex àddina bi jeex na ba pare kenn ko nekk su ñun dundatu téeméeru at est-ce que sa conscience mën naa tranquille gannaaw ba nga amee loolu ñu di la dig privilège yooyu ñu la jox parce que dafa am ki nga toroxal benn tot ñu jox la dëkkuwaay nga dëkk war sa oto di lekk say musi nekk sa olala est-ce que boo tëddee nga ne man lii na ma ko amee dafa am ki ma xas am ki ma wax lu ñaaw am ki ma sosal bañ ma jox lii est-ce que sa conscience est-ce est-ce que sañ ngaa yëkkati ñaari rakaa ci kër googu est-ce que sañ ngaa juli ci kër googu subhaanallah nañ leen xalaat addina bi dafa jeex te nit ku nekk la la yàlla riddal sa wërsëg keneen musunu ta waane munu ta muusa ko waane ba mu ko jël kon nañ leen bàyyi aaya bi xel ci suuratu shams wa nafsin wa ma sawaaha borom bi maa ngi gëñ ni ma bandee bakken ni ma bindee bakken ak ni ma ko yemale fa alhamaha fujuraha wa taqwaha xamal naa bakken ji la koy ràññitloo lu ñaaw la mu nekkee ak lu baax la mu nekkee waaye li fi nekk mooy qad aflaha a ngi nii mucc na képp koo xamante ne sellalal na bakkenam ñoŋal na bakkenam rafetal na bakkenam wa qad xaaba man dasaaha buur yàlla ne nit a ngi nii toskare na mujj bu ñaaw médité na ko kan man dasaaha képp ku jël bakkenam boyal ko jël sa bakken boyal ko di ko jëfandikoo ci lépp loo xamante ne yàlla bëgg ko àndu ci yonent bi bëgg ko àndu ci képp ku mbaax ñor bëgg ko àndu ci jamono ji tey loolu nit ñi di dundu ci loolu la nit ñi di véhiculer xuloo ci télé yi xuloo ci plateau yi xasante ci internet bi waxante lu ñaaw ci internet bi or ko yeneen réew yi ñoom ñu ngi jëfandikoo internet la leen di suqali la leen di yóbbu ci kanam la leen di avancé loo boo xoolee internet wala yenn ci plateforme réseaux sociaux yi da nga naan est-ce que ñun xam nañ importance su internet nañ leen soppi doxalin nañ leen jël internet ba ñu yàlla wërsëgal ci dund bi ñu jëfandikoo ko lu ñuy avancé loo ñu bàyyi di ko xasante di si xuloo di si waxante lu ñaaw moo ne matu ko jaru ko àddina bi jeex na ba pare mbokk yi réew mi fm 97.5 ci waxtaanu fajar ba ngeen di am ñoom ci waxtu wi tey buntu bi lañ leen andil nasalullaha jalla wa ala an yajcalana min alladina yastamicuuna alqawla fa taqwaaha wa zakkiha wa man zakkaaha anta waliyuha wa mawlaaha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 innahu huwa algafuuru rahim wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu